ngir Mawlana Cheikh ibrahim Niass di ci tàgga yonent sallallahu alaihi wasallam ci wal bu njëkk bi moy tay sirul wusul harful alif moo ci jiitu ci lañu ñu nekk fan lañu ñu fanas atuhu kan zaitul haqqi wahdu du atana zaaka ataana kaasiman wa mukassama loolu nañu mawaahibu rabbil arsi taaha muhammad wa rahmatuhu wa rahim fa akrima foofu la ñu yemoon yaakaar naa mu ne bashirun nazir di yëpp ci tur bi la yëpp ñëw na ci alxuraan moksit huwa kaasim jawaadun karim baasitul kafi munima bashirun kuy bégalaa la di bégal ñi topp yàlla ne dinañ texe bis penc faw mu am ñi dina jaar nii ñi jaar nële dina am ñu texe dina am ñu texe wadi nazirun kuy waare la di huppé xuppee waar nit ñi hupp leen yëgal leen ne ah bis penc dina taxaw am na ñu gëm am na ñu weddi ba jonne tey waaw am na ñam dañu dañoo jàppane bis penc amul nit du dekki kenn mënul dekkil nit nit bu dee daal ñu euh suul la ci suuf suuf lekk la jeex na waaw seen gis-gis noonu la toll jeex na su lekk na ko yëpp jeex na yax ya fa nax na mu ne mënatuñu mënatul yàlla mënatul dekkil loola hmm. waaw loolu yàlla di wax ci alxuraan yu bëri bëri di leen tontu alam yara insaan naa xalaqnaa min nutfatin fa izaa huwa xasiimun mubiin وضرب لنا مثلا نسي خلقه وقال من يحيي العظام mu ngay laaj man yuhil isaam wa hiya ramim loolu la ñuy laaj man yuhil isaam wa yaram ramim yàlla tontu na leen qul yuhyiha allazi ansaha awwala ko sosoon te dara nekku fa woon mu nekkal ko ba mu nekk nga ne kooku mënatu ko loolu du du xalaat tontu na leen tontu yu wér ci alxuraan moo ko defoon nga ne mëntu ko hmm. loolu de yaakaar naa sax yomb na tubaab yi ñuy defar moteur yeeg oto yeeg téléphone yéeg télé télé télévision yeeg marque bi ñuy def nii mën nañ ko def defaat ko sa oto bi yàqu nga dem ne defaralaat bu mel noonu net net net net net waaw yaax yooyu fën ak suuf si ko moo xam da nga lakk mu def doom nga jéeri ko ci biir géej gi ngelaw li ëpp ko mu dugg biir géej lépp dina delluwaat amul lu ci réer lépp dina jógaat waaw mooy mooy nasir muy waaree di xuppe ne bis penc dina taxaw de ku mu neex gëmal ku mu neex weddil loolu moom yàlla jox na ci sañ-sañ ñëpp waaw yàlla démocrate la démocratie bi ñuy oote yàlla moo ci jiitu waaw laa foofu la yàlla waxee ne laa ikraaha fi diini qad tabayyana rusdu minal ghayyi ko démocratie ëpp ko forcé wuñu kenn mu topp yàlla forcé wuñu kenn mu topp diini wante lii jub ak lii jub lii jubadi laajul jàng laajul kii xel sa jëfandikoo nga xam ne lii mooy lu baax lii mooy lu jubadi lii la xel nangu lii mooy li yelu maanaa lii moom xel nangu ko lii moom ñaawteef la waaw ni dema dem ba jël ay turpitude ñu koy tuddee ay valeur ay valeur universel universel nee na ba bëgg ko imposer adduna bi yëpp ay jikko yu sauvé yoo xam ne ba pare ñu tuddee ko ay valeur te ñu tuddee ko turpitude turpitude kenn mosu koo gis ndax si dañoo jàppan ne bu ñu deewee jee dañu dañuy gis ñuy ndénkaane ne bu ñu génn àdduna dañ leen leen lakk daal def leen dóom ñu sànni leen ci jaww ji jeex pour ñoom jeex muksitun wa huwa kaasim muksitun ku màndu la moom yonente boobu waxu moom kaasim kuy séddale mayu yàlla la jawaadun ku tabe la yëpp ay baatu tagge la karimun ku tabe la jawaat ak karim yëpp teddaa jawaadun bu la neex nga fi di ko tabee karim nga fi dee ko teddaa nga ku tedd la baasitul kafi ku tàlleeku loxo la tàlleeku loxo mooy ku mën a joxe la mun ima kuy xéewale la loolu yàlla yëpp mu ngi jaar ci moom mu ka fan kuy topp la kuy topp yàlla wala ku ñu topp la moom yonent ba bindéef yëpp moom lañu war a topp aminun ku yàlla wóolu la wa huwa fi rusli mustaban moom boobu la yonent mustaban ku ñu tànn la de fi rusli ci mbooleem yonente ya habibu ilahil arsi mooy soppee borom aras de bat an ca ba yàlla tàmbalee mbind ba wa maxte man ak fa mu ko kaste yëpp maanaam fi tàmbalee tajaliyaat ya ba fa mu tàm fa mu koy kaste mooy soppee yàlla wa ab yadu ku weex tal la set weej yustaska al xamaamu bi wajhi naara leylu naara leylul jahli iskaana muslima te wayu bàyyi Abia kuset weccal ko wehtal yustaska desna sàkkoo taw alxamaamu niir ya ñu ngi sàkkoo niir yi ñu taw ñu ngi ñaan niir yi ci taw nan lañ koy ñaanee boo ci yii ci jëmmaam boo bëggee niir yi taw ñaan leen ci jëmmu yonent bi boo ci yii waaw boo bëggee ngir mànde yàlla yërmandeem njéggalam yëpp ñaanal yàlla ci jëmmaam jëmmu yonent bi ci dara jàmm Wow. Bihi ci mom nara la lere laylul jëxli guddik riiraange lëndëmuk riiraange mu ngi lere ci mom de is ba nga xamé ne kana nekkoon na guddik riiraange muslima di lëndëm ke ris ne kulubul kulubu jami'il khalqi ahya bi nuurihi wa alsinatuhum ahya fa zakka wa allama kulubu jami'il khalqi xoluk mboolem mbindeef yi axyaa dundal na leen de loolu moo tax kulóoba boobu bu la neexee nga nasab ko bu la neexee nga rafaa ko boo ko nasabee mu nekk maful mukaddam mafulu axyaa bële axyaa dundal na faayilu axyaa yonente ba la axyaa dundal na bi nuuri ci leeram kulóoba jamil xalki xoluk mboolem mbindeef yi boo ko dammaa mu nekk mubtada rek ak xabar xuloobu jamiil xalqi ahyaa bi nuurihi wa alsinatahum loolu moo tax mu nasab ko mën na nekk ndax day nekk mafuul mukaddam ci ahyaa bii di topp ni wa alsinatahum ahyaa dundal na seen làmmiñ ya fa zakka mu sellal leen wa allama mu jàngal leen xam wa wallaahi mu ngay géñ de moom bàyyi laatul fii la ahmada saniya fa ahmadu fardun jawharun lan ñu kasama maa ngi géñ ci yàlla laatul fii doo fekk mukk li ahmada ñeel kookule di ahmad saniya ndende ñaareel ku mel ne yonent bi nga gis ko nee doo ko gis giñ na ci doo ko am seet ko ci biir yàlla yëpp di ci malaayka ak yonente yeeg doo fekk mukk yonente ba di am moroom maanaam saniya ndende fa ahmadu moomu fardun kenn la de jawharun perle la bo xamne lan ñu ko sama deew ñu ko xaajale perle duñ ko séddale haaj ko ni am ciir yu melni ne ci mom déedéet mënul nek kenn mënu ko séddale alayhi salaatullahi suma salaamuhu yal na julli yàlla ak lam nek ci mom al ali and ak ñoñam wa sahbi ak wa sahbi ak sahabam al kiram ñu baax ña zawi nama borom xéewal ya borom ak may ya namaa xéewal lay firi namaa ci arab mooy yokkute xéewal rek la si jublu barke fa in tas aluni mu ngi wax leneen moom bàyyi bu leen ma laajee an habibi kan mooy sama soppe wa say di nekk sang ma sang fa taaxa yëg leen ne mooy taaxa habibullahi soppe yàlla ba de mooy sama soppe mooy sama sang maal xayru wa ma maal wa ma maal xayru amul keneen ma déedéet wa ma déet loolu daf ko mëttale way wi di gën tàkkiit ci li muy wax amul keneen aw ma beneen soppi aw ma beneen sang ku dul moom fa waxti wa saati sarraftu li zikrihi salaatan wa matxan minhu kat sirtu jaylama fa waxti samay waxtu wa saati samay saa yëpp sarraftu soppasandiku naa soppasandiku ko soppasandiku naa ko li zikrihi ci tagg ko samay jamono yëpp jeexal naa ko ci tagg ko moom yonente boobu salaatan may julli ci moom wamat xan ak di ko tagg minhu kat surtout jaylama ci moom laa mujjee sama diiru jamono sama diiru jamono day tëgg day gën a dëgëral rek ci euh, saraftu li zikrihi jaylama mooy sama diiru jamono Jeylema Jiilema bu la nee nga ne Jeylema bu la nee nga ne Jiilema sama diiru jamono def naa ko ci moom fa man raama darki bistiyaaki nabiina fakat raama amran mustahalan muharrama bayit bi bëri na lool li koy gaay di wax ci tànte di ko firi bàyyi moo ko bind de te du bindu caaxaan waxul waxu caaxaan de waxantewul mandewul tërëful mu ne képp kuy sàkku faman raama képp kuy sàkku dar ki dàpp ma fi istiyaaki na bii naa ci bëgg sunu yonente bi ku ma ci bëgg dàpp ci bëgg yonente bi fakat raama kooku de na xam ne mu ngay sàkku am ran mbir mustaxaalan lu mënul a nekk muharrama araam na sax faf nga koy jéem mustaxaal wala mooy mustaxil mustaxil mooy impossible lu mënul nekk koy jéem loola yaa ngi jéem lu mënul nekk de ah kon de bàyyi daw raw nañ ñëpp ci bëgg yonent daf ko da bëgg yonent de ni mu koy waxee ni mu koy waxee junjee nii weesu na ko nu mu bëgg yonent ak ni mu xam ko xamee kenn kenn amu ko boo ci génnee sew tijaan yi sëriñ ku ko dab ci xam yonent ak bëgg yonent mënul nekk amul waaw du yonent moom ah, kenn kenn mënu koo dab ci bëgg yonent lii du bindu caaxaan ku sakku de yangi sakku lu mënula la nek ngi sakku sax lu aram ci yow mu ngi gëna melal lolam mu nan ka man rama maskal batri yow man bi is boin in wa man rama awdal am yow man wa ayuma wala ayyam wa ayuma waw kuy sakku loolu ka man dafa melne ko xamne rama mu ngay sakku maskal batri lal wer wi yow man bi isbayin bi isbayi kuy sàkku dab ma ci bëggante bi yaa ngi mel ne ku taxaw ci kaw suuf jël sa baaraam bëgg ko teg ci kaw weer wi loolu nu mu lay jafee dab ma ci bëggante bi noonu la lay jafee est-ce loolu mën na nekk taxaw ci kaw suuf jël sa baaraam teg ko ci kaw laal weer wi maskal bat yow man bi isbayi ak koo xam ne mu ngi sàkku démb mu delloo démb mu ñëw tey xam nga yooyu impossibilité la yoo xam ne mënul nekk delloo démb hmm. dégguñu ko ci yonent yi dégguñu ko ci fen xanaa yonent bi de delloo na jant bi jant bi dem ba soow mu joxoon ko mu delluwaat ba ñu julli tàkkusaan loolu de am na wante delloo démb daal jànguñu ko ci mu ujisaat yonent yi ak karaamay wëlu yi waaw démb la woon lan samedi nga fexe ba samedi démb delloo la ajuma barki démb mu ne kuy sàkku dab ma ci bëgg yonent bi yaa ngi mel ne kuy jéem a delloo si démb yow man raama awdal am si dafa mel ne kuy sàkku delloog démb yow man wa ayuma moo xam benn ci jamono yi nga nekk wala diiru jamono ngay sàkku delloo démb xam nga ne mënul nekk kon mënuma dab ci bëgg yonent waaye bëgg na yonent de daf koo bëgg ba jeex ci moom na jeex waaw bayit yi muy wax di junju mook yonent bi na mu mel euh, buñ la koy wax sax day day doy waar day yéeme na lool lool lool waaw nee na sax bëgg na ko booba alam bi nekkagul kon nga xam ne bëgg na ko ba jeex ci moom ba gis ne moom la jëmmam moo taxaw ne te booba jamonoog barab amagul te du waxu caaxaan bàyyi nee de bàyyi ku yàlla gindi ba nga bokk ci njabootam te am yàlla may la mbëggeenam nga ngooy ci buumam xamal ne am nga cër bokk nga ci ñi yàlla gën a may cër ci jaamam yi ku ko bañ nag musiba la bañ ko moom musiba la xaliftu hmm. yaminan laa bu ni si waas addin wal ak suufi xaali buux diya xaliftu ah. yaminan laa yuhibbu ni laa as addin ku ma bëgg rek texe nga wal ak su ci halibok dia, ku nar a texee di dal mo ngi ci haluk buxdiya mo ngi ci halu mbagn ma foofu moom loolu sax soretul ndax fi lañuy nek di werante sama sëriñ moy nangam ak sama sëriñ mo nangam wante ku genn aduna rek buñ lay rop rek nga nga fofu amul werante boy dé rek di jaarlok mbir yi boy genn aduna di jaarlok mbir yi nga xamné ne way ak way bokul amoon aw awdal am si yow man wa ayuma ka man raama darkal wasfi loolu ba léegi mu ngi ko ci gën a leeral de mu ne ku bëgg ku ma jéem dab ci bëgg yonent bi kooku de daa mel ne kuy jéem a dab melokaanu yonent bi yépp nga mën koo dab mën koo wax yëpp kon mu ngi wane fii ne li yàlla jagleel yonent bi ci ay melokaan kenn mënu koo dab kenn mënul fexe ba wax ko da wax tuuti rek bàyyi waaw ñu ko xam digg digg digg lu luñ ci wax rek lu tuuti lañ ca wax kim kii jéem a dab ma nag ci sopp yonent bi kaman raama darkal wasfi day mel ne kuy jéem a dab melokaanu yonent bi ay dan ba léegi mu nekkat ak saru gars yi de bari nañu lañuy ñuy tagg yonent bi bind nañu lu ne ñoom bu Busayri ñoom ibnu Mahay yëpp kenn xamoon nañu toll ci tagg yonent bi boo demee ci burda lay bur Euh, Busiri di di ak yonent bi ak ni mu koy tëggee nga xam ne lii du nenoon neen mu ne wax nañu wax a wax a wax wax wax wax walakinnahum wante ànd wax yooyu nga xam ne wax nañu lu ne kat xaadaru delloo nañu ñibbi mu tara dima bàyyi fa bayal ya tara dum ci arab mu tara dima mooy bu la neexee nga ne weddem nañu bu la neexee nga ne bàyyi nañu fa maanaam béy nañu tool bi ba sonn ba ñiis ba ŋoor ba wow koŋ terewul ñu nga bàyyi tool ba noonu rek mënuñu dem fenn mënuñu ko jeexal bu la nee nga ne weddem dellu nañu weddem mënuñu jeexal bu la nee nga ne bàyyi nañu fa barab ya bàyyi nañu fa bayaal ya may daan ya bàyyi ko noonu ñibbi mënuñ sa dara walakinahum qad xaadaru mutaraddama waaw eh, fan laati eh. fa asartu xubbal Mustafa doona xayrihi wala uma kalsum nelaw kaana mariama mu ne baay bi mu ngay nettali ñu baay bi muy tagg bi muy sadd kasida bi booba ñu ngi koy wàccee ñaari siit waaw kii tudd umu kalsum ki tudd mariam waaw muy wax naan fa azartu man de gënat laa gënat li naa xubbal Moustapha soppa yonent bi doona xayri yi walis kenn ku dul moom wala ummu kalsum doonte sax ummu kalsum bi ñuy wàccee nii wala kaana mariama doonte sax mariam bi ñuy wàccee nii sama mbëggi la yonent bi weesu na ko weesu na foofa mbëggi la yonent bi weesu na alxissiya loo xam mbëggilu alam bi loo bëgg ci àdduna ak alalu addima kooma àdduna ak lu mën a doon mbëggilu baay ak yonent bi weesu na yooyu waaw wala ummu kalsum wala kaana mariama fa wallahi maa fil kalbi xasun li xayrihi gisoo ngay giñ ne fa wallahi giñ naa ci yàlla léegi nag danga koy gis boo demee ci euh, kibritul ahmar ki euh, foto ataay bil anfas ak kibritul ahmar muy taggasee te mu ngi wax naan yonent bi dara dara mënul xaj ci xolam lu dul yonent bi buy tagg yonent bi nga xam ne moom lay wax bu demee ci seex bul yaakaar ne keneen lay wax moom la rek buy tagg seex yonent ba lay tagg seex mooy sëriñam bu koy tàgg di tàgg yonent yëpp benn lañu du duñu ñaar fa wallaahi maa fil kalbi xasun li xayrihi giñ naa ko ci yàlla nekkul ci sama xol xasun cër li xayrihi ñel leneen leneen mën a xaj ci sama xol li dul yonent bi amul fa xayru rasulillahi fa xayru rasulillahi laysa li taalama hmm. xamal li ma lay wax ku dul yonent bi laysa mënul nekk ci sama biir xol waaw li taalama boobu mëttali woy la mooy ne xamal bu baax li ma lay wax dégg ko ay rasulillahi laysa li taalama salaamaaleykum